yër li nga xam ne mooy ëttu yéenekaay yi moo di mu mel ni taawu yéenekaay yi nga fas yéene tàmbalee tey. waaw mu di Le Soleil comme que mooy taawu yéenekaay ñu daal di dooree ci moom mu ñuy fësal waxtaan boo xam ne amoon na démb ci diggante syndicat yi jàngale jàngalekat yi ak nguur Sénégal mooy lu ci toll ci ñaar fukki poñ lañ doon waxtaanee démb waaye nag si li nga xam ne moo di journal bi li mu gis moo di déggoo daal dina am seen diggante wala sax bu déggoo amul fi mu nekk fi ñu teg seen tànk bu ñu ko noppiwul rek dinañu mën a déggoo ci ay kàddu journal bi daal di wax ci li nga xam ne moo di législature onzième bi nekk Sénégal mu ne nag lii nekk lu bees Sénégal ndax kat assemblée nationale Sénégal ca fait où 1960 la commencé woon ka fa njëkkoon a nekk président moo di président Lamine Gueye 1960 ba 1968 moo fa nekkoon mu ne ba mu fa jógee ki nga xam ne moo di docteur Amadou Cissé Dia moo fa wutu nekk fa mu ne nag moom moo gën a yàgg ci bopp assemblée nationale boobu ndax moom def na fa fukki at ak juróom ginnaaw moom Habib Thiam moo fa toog 1983 ba 1984 nekk nag ki gën a yàgg ki gën a néew lu mu toog ci bopp assemblée nationale ndax coowul politique moo ko fa bàyyiwul ginnaaw loolu Abdou Khadre Cissokho moo ko fa ba ni nga xam ne da parti socialiste di wàccee ci nguur gi ca atum 2000 soxna Oumy. mooy loo am solo ci histoire kon ñu dem xool direct info. Euh, direct info ak kàddu ki nga xam ne moo di Yankhoba Seydi bokk ci membre directoire bu parti bu réew mi di parti bu sa Seck daal di yëkkati ay kàddu mun a Benno Bokk Yaakaar moom amatu ci yaakaar ndax kat gisul lenn loo xam ni ay jéego la wala doxalin yoo xam ne mun naa joxe yaakaar ci biir li nga xam ne moo di kuréel googu politique yi daal bokk. ab interview la accordé journal bi lépp lan moo ko waral nag mu ngi ko fésal ci biir journal bi wàllum xew-xew jamono professeur Abdoul Badar yëkk ci kàddu mu nekkat ñu bari ñi nga xam ne dañuy dee goo xam ne déegu betteel la dara waralu ko doon ay feebar yoo xam ne xol lay jàpp te seen borom xamu ko weeru koor bi journal bi daat na ci wax mu ne li nga xam ne moo di jën kat dafa manqué ci marché bi te itam njëg yi kenn mënu koo jot mu ne nag nekk na loo xam ne lu métti la si ñi nga xam ne ñoo di jigéen ñi habillement tamit ci wàllu weeru koor bi journal bi daat wax mu ne xale jigéen ñi dakkit yeeg jiin yeeg zipp yeeg lépp daat nañ koy denc fi mu nekk ay muuraay moo fees jël ci mbedd mi mu ne sax weeru koor yi jigéen ñi nga xam ne dañuy jaay seen bopp kenn gisatu leen ci mbedd mi ah loolu de nag moom euh, yàlla na wéy pourvu que ça dure l'enquête yéene kaay. enquête mu ne diggante Paris Dakar ak Washington fi mu nekk dafa mel ni mbir yaa ngi gën di ratax ndax kat démb ki nga xam ne moo di Laurent Fabius demoon na fële seeti a marre nee nag gannaaw su fa jógee ki nga xam ne moo di Hillary Clinton moo fa fas yéene ñëw ki nga xam ne nag moo yor lépp lu jëm ci wàllu bitim réew bu réewum France dem bi mu seetee waa Y'en a la mu fa ñaawlu moo de ñi nga xam ne dañuy wut visa ñu leen di fitnaal ci ambassade gu France te itam di laaj koppar yoo xam ne teguñu ko fenn nee na nag lii kenn def ko Claude Guéant ak ki nga xam ne moo nekkoon njiitum réew France di Nicolas Sarkozy mu nag ñii nag dafa nekk ñoo xam ne xamuñu dara xamuñ nan la réew di doxee te lii moom taxaw na ngir daal di koy rectifier journal bi dañu xamal ne ay bés gii di ñëw nag ki nga xam ne moo di Hillary Clinton moom dina ñëw fii Sénégal dem seeti waa Y'en a marre nag lii lépp dafay wane ne diggante ñetti réew yi mu ngi gën a ratax wàllum politique journal bi wax na ci lu ndaw mu ne ñi nga xam ne ñoo di transhumants yi maanaam ay weñ la leen tuddee nee na fu tooy rek daal di dal nekk Macky la ñuy seeti. jikko weñ day baaxul le quotidien yéen kaay. le quotidien yéen kaay ak kaddu ki nga xam ne moo di xalif général kullu murid de Serigne Sidi Mokhtar Mbacké li mu yàqal Macky Sall moo di kat li fi amoon na dakk nañ fi indi lu bees tàq xaalis bi ñu jël di ko séddale politiciens yi nañ ko marabu yi maanaam ñi nga xam ne ñoo di kilifa diine ñu leen fekk seen i kër di leen joxe million na dakk ne kat ñoom mbirum diine leen ñor nañ ko kii politique yi daal di doxal politique jël xaalis bi dugal ci askan wi moo moom rek koy daal di mujj lekk wàllum politique parti démocratique sénégalais Ousmane Ngom ak Modou Diagne Fada la ñu njort nañ ki ñoom ñaar kenn moo ci war a nekk président groupe parlementaire boobu ca assemblée nationale intervention ba war a am ca Mali ñu ne réewum France fii la koy waajalee li moo waral tukki Laurent Fabius fii ci Sénégal. kon nag leer na ci bopp yi laas yéenekaay lan la ñu andi laas yéenekaay mu ne audience yoroon am fole ci Macky Sall ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci diwaanu Touba rawatina ñi nga xam ne ñoo bokk ca partem ñu ne coow lu rëy la mujj jur ci diggante Aminata Tall ak ñi nga xam ne moo di Moustapha ay kaddu yi ña nga sax gars yi daan nañ ko fay weccoo ca kanamu militant yi nga xam ne yorewuñ leen lu seen i gët ngir xool wax yu ñaaw ju ñu waxante seen diggante ñu ne Aminata Tall dem na maa ko Moustapha Cissé Lo yow ab lâche nga man duma amoon lu may wax ak yow wàllum société te ci biir journal mu ñu xamal ne kat ki nga xam ne moo di juge bi bañ na li nga xam ne la Amadou kan Diallo tegoon ci table bi maanaam jox ko ay kër ngir mu bàyyi ko bàyyi ko négandi mu ne ko soxla mu ay kër cash laa soxla 100 millions rek mbaa nga tëddaat. le populaire yéenekaay. le populaire yéenekaay moom daal dañuy wax mu ne lan moo làqatu ci ndëgu li nga xam ne la Macky Sall organisé këram woo fa ñi nga xam ne ñoo di député yi bokk ci partem mu ne nag li mu ci gis moo di kat dafay yëy seen nopp liggéey leen ngir kat heure bu ñu demee assemblée nationale ñu daal di votel ki nga xam ne moo di Moustapha Niass du am benn coow ndax kat bëggul genn mbettel daal di fay génn wàllum politique googu journal bi dañu xamal ne kat ki nga xam ne moo di a taal di yor parti bi di set setal dafa bëgg boole parti ak bi nga xam ne moo di APR bu Macky Sall Serigne Saliou Sarr alias Zos di nekk njiitu écurie bi di dóor dóoraat ci biir yéenekaay bi muy wax ne man yaaram laa aw ma benn relation ak xale jigéen yi du xaritoo du nobante bu ko defee noppalu la tribune. la tribune yéen kaay wàllu politique la daal di wax mu ne ndax ki nga xam ne moo di Abdoulaye Balde du nekk ministre ci nguuru Macky Sall. mu ne nag waxtaan yi ña ngi koy amalee ca kaw a kaw mu ne nag lim ci joxe comme firnde moo di Macky Sall ak ki nga xam ne moo di Abdoulaye Balde kat ndeke dañoo bokk bokk gu jege la ndax kat Sall dañu ko tuddee papaay ki nga xam ne moo di aawo Abdoulaye Balde te itam mag Abdoulaye Balde parti bi mu bëgg a sos dafa bëggul lenn lu su noppee mu daal di ko dem coaliser ak ki nga xam ne moo di APR bu Macky Sall wàllu koom-koom journal tim daat na ci wax mu ne ginnaaw gros producteurs yi ñu fi tuddoon maanaam gars yi nga xam ne naan jël jiw baykat yi mu ne nguur gi lak lam ci bëggoon def enquête mujj na koo tegandi ci suuf ndax ay pression yu bari moo tegu ci koom fond bi nga xam ne nag lañ fi bëgg a def mu de FNP FNPE ñu ne nag fi mu nekk dañu ko fas yéene def banque ba tax BOAD daal ci dugal 98 milliards mu ne xaalis boobu moo tax sama gars yi fi mu nekk ku nekk ngir daddu say bagage nan nañ la ko jox libération yéenekaay libération yéenekaay mu ne bureau assemblée nationale gi ñu war a composé te koo taxawal Macky Sall xam na lépp waaye nag dara seenul ci moom ndax ba bokkul ba si ñuy bokk ci parteem kenn xamul lan la mbir yi demee kenn xamul kan ma fa war a toog ak kan ma war a toftal ci kaw Moustapha Niass waaye nag lenn li ci leer moo di lépp loo xam ne moom ci wàllu koppar la xaalis waa APR ñoo ko fasciné gérer seen bopp wàllum société ñu ne kat am na commerçant yoo xam ne ñoom weeru koor wi terewul def jëfi ñaaw teef jëf ju bon sax mu ne fële ca marché Petersen ay gaal lañ fa jàpp ñu yor deux tonnes dat tàndarma joo xam ni lépp a yàqoo mu ne laa mm. terewul gars yi daal dinañ ci teg loxo keneen koo xam ne teg nañ ko loxo suñu doomu réew la nekk Séné nekk Sénégal yi fële ci réewum France la xam ne fa ay ko dugal cigarette ci aéroport yi mu ko fa doon jéema dugal gars yi daal di koy mujj teg loxo. cigarette de du mbokk réew mi yéene kaay. réew mi yéene kaay mu ne kat wàllum courant gi la wax mu ne wàllum courant gi Macky Sall taxaw ngir wax ak politique gi mu wax te ko ci indi. ndax du loxo ki nga xam ne moo de Karim Wade moo làqu ci ginnaaw mu ne nag Macky Sall li mu fi teg lépp lu fi Karim Wade waxoon ba pare la mu ne nag bokk na ci ki nga xam ne moo fi nekkoon ministre de di Karim Wade ak financement boo xam ne jotoon na ko ca banque mondiale ca avril 2011 leneen lu journal bi wax kat mu ne FMI ak banque mondiale ak Washington lii lépp nekkoon na programme bu ñu ak adopté te itam Bretton Woods tamit nekkoon na loo xam ne rafetlu na ko ndax kat ne noonu plan tàkkal mun naa génne Sénégal ci jafe yi mu nekk ci biir journal bi El Hadj Bekay bi daal di ci yëkkati ay kàddoom wax ay dëggam yoo xam ne lu leer la mu ne kat li fi seen CNG yëkkati naa ne bu déwénee saison blanche mun naa am Sénégal nee na bëri moom ku ko fi dindi rek jéyee dina fi am. Euh, ñu dem xool Sud Quotidien. Sud Quotidien moom daal di wax ci ndaje mi nga xam ne le jeune socialiste yi amoon fële sa maison du parti seen ndaje ak taskatu xibaar lañ fa xamale kat mu naan ñi naan mandat Ousmane Tanor Dieng yegg na ca cëppaandaw ga xamuñ li ñuy wax te itam congrès ka fa tegoon congrès ka fa jëlee te ñoom waxtu wi ku fa war a wutu Ousmane Tanor Dieng nekkul leen ñor seen biir parti ñoom li leen ñor moo di kat nan la ñu xoolal ba liggéeyaar seen parti ba mun a dellusiwaat ci bopp nguur gi société ci journal bi tamit di ñu xamal ne mbiram sukkaru moom nekk na loo xam ni ëlëb na jigéen ñi Sénégal waaye nag ñu bëri ñu ngi commencé di xam ni la du waxu dara ay mbiram tradition kese la. waaw muy tradition bu rafet bu fekkee ni rek débordement amu ci. l'observateur yéene kaay. l'observateur yéene kaay mu ne Laurent Fabius démb moo demoon ca quartier général mouvement Y'en a marre Fadel Baro kàddu yi mu fa yëkkati moo di kat Macky Sall proposé na leen poste ministre ak député. waaye ñoom ñoo ne bëgguñu wàllum société observateur daal di ci wax mun a dog-dogu courant yi nar naa dellusiwaat mun a tamit te tamit li nga xam ne moo di yokkute courant gi tamit gi gars yi di njort dina am te lu leer la mu ne nag lii moo war a nekk xuloo gu njëkk ci diggante Macky Sall ak ñi nga xam ne ñoo di askanu Sénégal observateur daal di wax ci li nga xam ne moo di wàllu tàggat yaram Sénégal Uruguay mu a nag diggante Sadio Mané lay doon ak Luis Suarez Ryan Giggs nekkoon capitaine bu Grande Bretagne moom li mu xam-xam la ci Bretagne waroon naa am carton rouge du gën ngaa néew ñett yoon ci biir match bi. boobu fa arbitre ba nekkoon. ah mu ngi woon ci terrain bi de. le pays au quotidien lu mu wax. le pays au quotidien Ndeye Gueye la daal di jël jox ko inam soxna si di ab fecckat ab caxagun la fi wax ci biir kii bi mu ne li nga xam ne moo de weeru koor bi taxul mu daal di koy dakkal te itam mu ne sénégal yi ñu bëri dañoo naa feq ndax kat saa su koy fecc ña fay fees dell bu ñu génnee di ko dingat ni muy solo mu ne gars yi dañ koy apprécier di ko ko woo di ko ko wax te itam mu génn ci mbedd mi ku nekk naan kii nii la mel ni mu mel nee na ni muy solo. loolu la yëg te noonu la koy doxalee nee na nekkul koo xam ne day jaay boppam te itam yaakaarul dara ci góor moom daal ñaq jëriñu lay def waaye soxna si nee na julli moom mënu ci lenn loolu moom duma ci commentaire. Euh, no comment nga daal di dem rek ci activité yu gën a seen muy sport. sport ak lii Leewtoo yéene kaay ñu ne coow li amoon ci diggante Zos ak booy ñaa 2 mbir yaa ngi wéy mayaay ba léegi jeexagul ndax pënd bi wureegul ñu ne ndax li ko waral moo di CNG la ñuy daal di xaar mu génn dogal gi mu ci awar dogal gi mu ci war a amal Eumeu seen nekk chef de file écurie Tay Shiga ñu ne nag fi mu nekk bokk na ci bër yi nga xam ne ñoo gën a xarañ ci biir arène bi ñu ne ginnaaw seen i jël di Tyson ak Yékini ñu ne nag seen écurie fi mu nekk moo taxaw ci tànk tas bilan écurie Fass ñu ne tamit dafa taggatémbe ndax dara leeru fa soxna Oumy Leewtoo buñ ci jógee dem xooli sunu làmb. sunu làmb def bilan lutte simple maanaam bëri yi nga xam ne amul dóor ci atum 2011 2012. mu ne fanweeri bëccëg ak benn la ñu daal di bëre neen la toll na ci 1739 combats koppa dañ ci séddale toll na ci 19 millions 750 mille yoo xam ne daal nañ koy séddale yooyu mbër événement yi gënoon a am ci année bi mu nekkat ci diggante Balla Gaye 2 la woon ak Yékini waaye nag Balla Gaye 2 moo jël ndam la ci kaw nii bii nag nekk defet gu ñàkk ci Yékini gannaaw fukki at ak juróom yoo xam ne mu ngi ko teew ci arène senegal nekk fukkeelu victoire ak fukkeelu victoire ak juróom-ñett bu Balla Gaye 2 di gone géejewaay gi Bombardier moom ci biir yéenekaay bi mu ne na ko gars yi jox Gris Bordeaux ndax fi mu nekk yaramam moom lay laaj waaye nañu noppalu nag saison bi tëj na. ah pour déwén a tax muy wax xanaa. waaw kon nag baax na yàlla nañ fa àgg ak jàmm stade yi ni kay. Esat yéene kaay daal dañuy yëbb fële ca Londres ak Jeux olympiques yi nga xam ne moo fa am Sénégal ginnaaw bi mu témb ak dëkk bi nga xam ne moo di Grande-Bretagne Uruguay la war a dajeeg dimanche gii nii 16h lay am mu ne nag fi mu nekk Sénégal faaw mu gañe ngir yaakaar yegg ci li nga xam ne moo di quart de finale ki ñu toftal ci entraîneur équipe nationale mu nekkat Uruguay bokk na ci équipe yi gën a am doole ci poule bi nga xam ne la Sénégal war a football mu mel ni kon mbir du yomb. xanaa ñu ñaan rek. waaw ñaan ci weeru koor lañ nekk. ñu ñaan ñaan yàlla nangu. incha allah kon nag eh, lii nga ma àndiloon tey àndil ko mbokk yi ci ñaareelu xaaj yi waaw mooy li yéen a kaay yi xëyee tey. waaw kon ñu def la gërëm di la sant jërëjëf.